ginnaaw ay waxtu yu bari yoo xam ne def na ko ci wetu xalif général des mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké ci topp ci njiital euh, Sierra yoon dal di jël yoon dëtmal fi nga xam ne moom mooy jumaa ju mag ji ngir amal fa bu am solo bi ñu yegsee nag ci jumaa ji ñu dalal ko fa bu baax a baax mu jubali nag fi nga xam ne moom mooy ca xabru Serigne Touba Xaadim Rasoul ngir dal di fay amal ak ñaanam mboolem délégation bi nga xam ne ñoom la àndal bi nu noppee ci loolu Mouhamed Julde jàlloo dal di jubali fi nga xam ne moom mooy direction wu jumaa ji nu mel ñu fekk fa administration boo xam ne taxawu nañu ko bu baax a baax ci biir administration boobule sax ab régie bu mucc ayib boo xam ne ñoom ñooy jàllale activité jumaa ji la lañu fa fekk. merci merci beaucoup je m'appelle moi docteur Mohamed Jules Diallo je suis le vice-président de la Sierra Leone aujourd'hui on est venu à Touba euh, pour visiter la ville visiter l'hôpital de Touba euh, on a profité pour faire un, euh, une visite au calife. On l'a venu pour saluer le calife. On l'a salué le calife. On l'a exprimé l'objectif de notre visite à Touba au calife. Et on a demandé le calife pour faire des prières pour nous, la délégation, pour notre pays, la Sierra et pour l'Afrique, et pour le président, son Excellence Macky Sall, pour qu'il réussisse la présidence de l'Union africaine. So, on a profité euh, de visiter le mosque, la mosque, grande mosquée de Touba. sa c'est une mosquée que je voudrais visiter depuis que j'étais étudiant en France. Quand j'ai étudié avec des collègues sénégalais en France, après j'ai travaillé ici au Sénégal pendant cinq ans, j'ai toujours voulu venir à Touba. Bon, Dieu fait sorte que c'est aujourd'hui, j'ai cette opportunité de venir à Touba. J'ai visité la grande mosquée Touba. J'ai vu le mausoleum de Cheikh euh, Bamba. On fait les prières là-bas. J'ai eu l'opportunité de venir ici. Je suis très impressionné et toute la délégation est très impressionnée. Le travail, le mouride, on fait ici. Ça, c'est une grande mosquée. Je pense que ça, c'est une mosquée de fierté. Pas seulement pour les mourides, et pour le Sénégalais, pour toutes les musulmans africaines. Je suis très content et je compte revenir, Inch'Allah, si un jour j'ai eu l'opportunité pour venir ici pendant le Magal. So, je vous souhaite, euh, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Assalamu alaikum.